saraax la nuy def ci xew xew lamb tey fekk fa Balla Gaye 2 ma sunu lamb teg ca xët wu njëkk baak liggéey bu rafet ba mu fa def ak ponkal yi mu fi génne génération 90 bi fi nekkoon ub lamb ji Balla Gaye moo leen fi jële muy Tapha Gueye deuxième tigre de Fass Mohamed Ndaw Tyson borom Kaolack Baboy la Mbarodi ak Yaxya Joom Yekini borom baasul ñoom ñëpp Balla Gaye 2 jëflante naag ñoom ne leen heure retraite jot na jëf ju rëy joojee mu def ci Tapha Gueye Tyson Baboy ak Yekini ngañ jaañ xam le ne du jëf ju ndaw moom Balla Gaye la mu def dootul yomb ku ko def ci lamb ji mën nañ ne mennam Tapha Gueye la daan fekk muy waaj dem retraite waaye lii di Baboy Cheikh Diop ak Tyson ñoom ñëpp da fekk seen diggi doole ñoom ñëpp bi mu leen di daan kenn waaju cee dem retraite père Omès ne ca toll ne Balla Gaye 2 li ko may loolu du leen lu dul ak vitesse am ak bi muy bëre ñett ñoo ñëpp nekk toon favorité génn na ca loolee moo waral journal ba ne Balla Gaye 2 daal génération 90 bi moo leen fi jële ka bëgg a jëlee Garga ci dynamique bi mu nekk mooy Tyson 2 journal ba parcours bu rafet mbër moo tàllal loxo jaadu na rax ca doole mu dugg écrit ñoom Garga daan Garga ñu ne déete waaye le 27 juillet mu duggaat fa daanaat Gora Sock loolee la journal ba xamle ne ki daan Garga 2 daan Gora Sock bu laajee Garga Mbossé numéro jaanam wàcc na moom Tyson bu laajee Garga rek làmb boole ña làmb naroon a boole ndax reliquat tàqalikoo nanu Moustapha Diop borom OK Africa mi fi tëggoon combat fee ba yàlla sottil na ko la mu xamle mooy Eumeu Sène ñaar fukki millions ak juróom laa leen waroon jox Eumeu Sène léegi Moustapha Diop ak Eumeu Sène kitoo kenn yoralatul sa morom dara ba kàddu yo moom Moustapha Diop la mu ca teg mooy maa ngi jox amateur yépp rendez-vous wax naag waa taay si nga ba juboo nañu wax naag biram ñi nga ba juboo nañu c'est avéré et effectif loolee la ko tëjee lañu njort ca wax joojee nag mooy face face bu mujj ba ñu waroon a organiser ci diggante Modou Lo ak Eumeu Sène dafa mel ni moom la Moustapha Diop di junj bu dee Moustapha Gueye Tigre de moom la muy junj mooy juboo ci diggante arbitre yeeg CNG jëf ji CNG def moom it naqarlu na ko ba fa naqarlu yem moom la mu xamle mooy grève arbitre yi décision bi ci CNG jël neexul benn amateuru lamb li CNG def amul kenn ku nekk ci dëkk bi ku mu neex amul kenn ku ci ànd amul kenn ku ci d'accord